am na solo mbir mi noonu ndeysaan xale barkeel waay ñu ngi leen bëggee dina siyaar dina jox sa wàccuwaay suñu champion bi ah foofu fu mu sa la maire gis ci ginnaaw ñu ngi leen bëggee dina siyaar di wax welcome soit la bienvenue di wax ne délégation ñoom Fatou Ndiaye ñoo leen di Ami Sarr Cheikhul Khadim Fatou borom xol bu rafet ndeysaan maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne dañu xaar sunu DJ Mbaye Sylla macha allah welcome sois les bienvenus suñu kilifa excellent sa bis bi daal ala doome ñu ngi leen na leen ñëpp ndeysaan suñu sedd na suñu xol sedd na macha allah ndax dañu xale bu la xam a joxoon mag ndam yàlla xam na ko kontaan nañ waaw waaw suñu jaraaf agsi na borom si mujj yow koo ñëwee da gis. xam nga ni kenn jërëmante liggéeyu day ñaanu bàyyi ko nangu papa jox ko tax a jóg sama doom ji góor gi nga sama ca moom jëndagum yow tubarkalla macha allah Papa Ndiaye commencé am bàyyi na la xel yal na yàlla la fekk dama ni li tax ngay def lii yàlla bu mu asaar bu la fekk ka ma yokkute nag ci bilaay tey nga xam ne nii laa lay joxante yaa ngi woy bu baax ku sagal ne kon di doy di bàyyi ah jikko ci kilo mën a yaa ci kaw boo ko diggalee sunu sunu jum bëggutoon nun la ko jox waay waay dono bi nga yor ci say maam la woon ba tey saa si woo ko benn yoon jaraf baay jaraf bi nekk yaay seen commandant bu ñu di secteur man di sa dina la fa man di ñëw yentu nit ku baax nii nan koy doxantoo jaraf baa ngi di waay koy tagg na loo taxaw dañuy teew ndax yooyu ñëpp la bëgg ngir sa taxawaay ci Djeddah Thiaroye Kaw macha allah madame la maire nuyu nañu leen soyez les bienvenus taxawaay rafet na seen teewaay rafet na avancé kontaan ak jàmm madame la maire sama aw Ndiaye Seck kontaan nañ macha allah yal na yàlla fay kontaan nañ yal na yàlla fay leen waaw di nuyu ñoom Nioro macha allah les grandes divas ñu soxna ci organisation yi. taxawaay bi rafet na macha allah waaye di wax ne dañuy ñëw rek vite fait dugal ki nga xam ne. ci sama sikil doomi day am ko ku mel ñoom jot eh boo wusee sama doom ji war na boo wusee papa Ndiaye war na. waaw kenn ku ko mel ngeen ci yàqu liggéey doom. fay mais partenaire ko ci moom nee nañ aw ma fayam jàpp na ci bis bi te wax dëgg yàlla seetaanu di ko jël di nga toog ci loxo góor a fal ci at bi jox na rek ñoo ko daal bi lu mu gis day am sabab ndax bu gisee dawal dafa am lu dee ku xam ne jotaay bi daa ala doole doo gis su joor gis nga xam ne mooy jaraaf suñu nga ne nii gis responsable des femmes Adja Sophie Ndiaye Sissoko nga ne nii gis délégation madame Guèye nañu ñuy gis ñoom Awa Ndiaye Seka ñoom Xawaasi ñoom Kumba Diop nañu ñuy gis ay délégation di délégation ak sunu papa wal li nga xam ne léegi la papa Ndiaye yëkkati ay kàddu jëmale ko ci moom ndax taxawaayam ci quartier ci gox bi kon wax dëgg yàlla nag nga xam ne kon papa Ndiaye am na loo liggéeyal gox bi. nañu ñuy gis waajuram yu góor yooyu toog moom papa Ndiaye ay waajuram yu fii ci jotaay nga xam ne bis bi daa ala doome wax dëgg di wax ne dalal ak jàmm Ndiaye Ndiaye. waaye di wax ne ndeysaan tey Papa Ndiaye nee na tey dañoo joxe tey 500 cadeaux dañuy ñëw commencé dugg ci programme ndax mi ngi guddi te nit ñi dañoo yeewu. 500 cadeaux yi xale bu ci nekk di nga am cadeau incha allah ci kàttanu yàlla di ñu nekk ñëpp yéen a ko moom. di wax ne Papa Ndiaye nee na ñi nga xam ne ñooy comité d'organisation bi di leeral nañu nopp yi ñu ngi ci organisation bi di waxtaan guddi ak bëccëg di nas. ak ñi nga xam ne ñoo gën a sécurité bi aussi. di ñaan. ñu ubbil la gisee ma dem julli ji dellu si yaa tax ak sa bu tedd bii. lumière lumière lumière parce que suñu gan moom sa kilifa gis nga nit bu ko xeebal bésam bu ko xeebal soxlaam bu la ko waxee bu ko xeebal sëriñam soo bëggee sa ànd ak moom sori boo gisee ma dem julli ji dellu si waat jëmm ji la. ndax soxla yi mu bàyyi ak yitte yi mu bàyyi ñëw fekk si ci suñu koñ bii kon nag jaraaf ñu lay dalal ci sa koñ fii nag boo fi ñëwee war nga fi ñëw fii boo fi ñëwee ñëw de fii boo fi ñëwee fii nga bokk fii ci yow la bokk képp ku xam quartier bii xam na ni yàq jëf la tuddoon fii lébu yi ñoo ko moom buñ fi dagaloon bokkoo bu ko defee ñun ñëpp ñu bokk àndandoo sant yàlla ci daje bi ñu daje ndaxte mënoon nañ ko bëgg te yàlla du ko dogal ñu ci dara waaye ñu def benn faatiha salaatul faatiha ah ñu ñaan yàlla bés bii yàlla na ci yàlla def barke ñu ñaan yàlla njaboot gii ngeen indi tey muy xale yu ndaw yii ñu ngi leen bàyyi xel de président ngi seen biir wali yaa ngi seen biir sëriñ yaa ngi seen biir borom daraja ñu ngi seen biir borom xam-xam ñu ngi seen biir li ci def nag yéen a leen fay gunge yéen yaay yi ak mag ñi ngeen di nekkal ci xale yi ngeen leen di xamal lu baax bu ko defee ñoom ñu mën a génn ji fi ñuy fële ñun ñi ñëpp fii leen nekkoon ci quartier bi di football di organiser yu mel nii waaye tey alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi yëngatu ci leneen loo xam ne loolu mooy dëgg bu ko defee ñu def benn fàtte salaatu fàtte yàlla tif juróom-ñeent yoon yàlla yàlla sàmm ñu sàmm ñu تستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والحمد لله صلى الله عليه وسلم الحق بالحق والهدى الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار laa ilaha bés bii doon bés bu màgg ci man man loo may naxe rek naxee ma ay xale rek moom nga ma mu doon bés boo xamante ni bañ ma ko waxee ci laa ci bàyyi xel lépp lu ma doon def tamit ma teg ko ci suuf di xaar bés bi ñëw pour ma mën a ñëw fii li kilifa gu tedd gi waxoon wax ni moo doon yàq jëf te mu doon lu dëgg tamit tey ñu ñëw fi pour defaraat jëf yi di lancer benn message bu ndaw rek mooy population Géejawaay Pikine pour liy xew ci jamono ji léegi kenn ku ci nekk xippiwaat sa bët xoolaat jamono ju doy waar ju mu doy waar xam kan mooy kan ndax tool nañ ci dëkk boo xamante ni kenn ku nekk la xam ne pom du new te jukko ndaw yi yàqu nañu saaga yi bari nañu respecté kilifay réew gi waxuma la kilifa diine yi ak yu aada yi di leen wax ni ñii ma fekk ci fii kenn ku nekk na nga xoolaat sa bopp xool fi réew mi jëm réew mi fi mu jëm mooy am na ay naxekat yu fi nekk lu yuuxu ngir jot néew mi Sénégal du ay foo man de yàlla dogal na ni maa ëpp politique mais guddi yiñ toll nii ku waxal yàlla rek waxal yorente bi dañu jàpp ni amuñu lu fi ëpp président Macky Sall ci réew mi kenn ku nekk na nga delloo ci sa xel nga wàññeekuwaat xoolaat fii nga teg sa tànk wàññiwaat sa njaboot ndax bu ñu jëlee réew mi yóbbu ko ci buuta walla ñu yóbbu ci réew mi leneen loo xamante ni dina doy waar torop kenn dootul xam ban Sénégal la ñu ne yàlla nag baax na ba am ñu nekk ci réew mi taawu réew mi téye réew mi di ñaan ci réew mi ngir réew mi dal kon dal boobu mu dal yàlla nañ ko njëkkee fii ci Wakhinane Nimzatt te yéen waa koñ bi ngeen xam ni bés boo leen organiser benn mbir képp ki ngeen gis ci mbir mi jàpp leen ni kooku moo sa bokk jamono ji ñu nekk nag surtout Sénégal dafa naqaree waxee man moom yàlla dogal ni ñu damay wax te gisuma lu ma teree wax dama ne réew mi ñu nekk tudd Sénégal ñun ñu nekk ay sénégalais buñ ko foowee kenn ku nekk na xam Sénégal fi mu jóge ak fi mu ñëw ñëwuma fi pour wax bilan kenn wala pour tagg kenn fi réew mi toll laa leen di wax ndaw ñi jël leen seen matuwaay bu leen kenn dugal ci naka sudul noonu ëllëg ñun ñoo koy wéetawoo bu leen kenn yóbbu ci benn terrain boo xamante ni da ngeen ciy xeex di ci xulloo seen waajur yi di ñàkk ku événement yi fi weesu yeewul 14 personnes yooyu ñàkk seen bakken seen yaay ñoo des di jooy ba léegi ak seen waajur yi kenn ku nekk bu amee baayam lay bayali ji ak waa këram na wooti xeex ak xuloo ngeen ciy dem ñun de lébu dañ ne wat ak yóbboo ñun lébu dañ ne na doom topp mag dañ ko te ñu xam ni pom du new bés bu ñu ñàkkee fayda ba ñàkk li ñu yàlla jox ëllëg yéen kese yaa leen kay souffrir soom nañu ubbi biro yi di jël appel yi di faj soxla yi loolu moo tax ëllëg suñu soxlaatee population bi yàkkamte leen jox fii ñu jëm nag du pour ñoom pour réew mi la pour Sénégal la Sénégal dafa nekk ci beneen phase boo xamante ni dañu war a defaraat jukko yi ak tànk yi ak kàddu yi kenn ku ci nekk xam Sénégal fan la la jëme ak lan la la Sénégal jox pour nga delloo si ko lu yóbbante délégation maire bi nee leen nañuy jàppale ndaw yi ci action yi ñuy def di leen dooleel ci lii ñuy def ministre bii nga xamante ne bu yàggul moom la ñu dénk napp gi na xam ni doomu Pikine la te mu gëstu waa Pikine bay say weewu tànk fépp foo jëm def fa leneen du ji dara amoon naa yaakaar ne de bu ma fi ñëwee dinaa ko fekk fii mu sagal waa Pikine saafantoloog waa Pikine ndax lu mu am Pikine moo ko jox ak géejawaay na xam ñoom ñooy ñan buñ ko waxee demande yi na koy def ci nu mu gën a gaawee looloo tax président ma Macky Sall jox lii mu am du pour moom yàlla nag bu la joxee nombal ñoo la fi bàyyi nañu jàppale ndaw ñi ci gàttal maa ngi santaat di gërëm di gërëmaat bu baax di kontaan ci ñëw bi ma fi ñëw su ma sañoon nag dinaa dem ba am ci kër dëkk ak yéen di def lii di def di ngi leen di nga xamante ne grâce à le maire Mamadou Gueye jaraaf li mu wane ne ku mi ngi fi toog ci bis bi teewut ak délégation mais aussi def délégation boo xam ne kenn ci ñoom rek bu teewoon man bëtu maire laa koy xoole bu ci mel ni officier vraiment kontaan nañ ci teewaay bi di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñëwaat ci kanam Thiès Thank you.

summer vibe, your sexy vibe, yeah, my style. Bienvenue sur Salam Vision. thank you